bàyyi nee na yonentu yàlla mooy aslil usuli cosaan yëpp seen cosaan yi maanaam baay yëpp seen baay kan la mu ne xabibu nal mu bajal yi kooku mooy suñu soppe bu ngand bi maanaam bokk na ci wax boobu nga xamante ne bàyyi daan na ko xaaree gàmm mooy weeru juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi wax ne laqad talaal xilaalu xilaalu taaha fa yaa bushra wa waahan suma waaha mu ne fenk na weer wi nga xamante ne mooy weeru yonent yàlla Muhammad sallallahu mu ne non bàyyi na woo naa sama mbégte fa yaa busra wa wëhën ak ndokkeel maa ngi woo ndokkeel gi nga xamante ne war ne ci juddu yonent bi sallallahu su ma wëhën topp ndokkeel ñëpp nañ génn nañu ndokkeel ma ci maanaam weer wi nga xamante ne man maa ko moom waaye dafa bëggoon yonent bi tellement dafa ngoomale boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeelu baay ci yonent bi man su ma ko bëggee décrire dañ koy xëcc tuuti ci wàll zaaxir ni ñu oyofal ko xam nga mi ngi mel ni àdduna bi boo fi ñëwee dafa am ay loi loi yi ngay fii fekk yépp nag ay nit ñoo ko bind ki bind luwaa bi bokku la ki nga xamante dafa war a ñëw di interpréter loi bi moo tax loi boo gis rek dañ koy interpréter interpréter rek moo ci am waaye nag ki nga xamante ne moo xam esprit du loi bi nga xam ne moom da doon xalaat ci bind loi bi ni muy xamee loi bi kenn du ko xamee loi bi nag ñëpp dañ ko fi fekk rek ku ci wax li ëpp rek da ngay mais bàyyi wax bi muy wax ci yonent bi dafay mel nii koo xamante ne moo bindoon loi bi xam gi muy xam esprit loi bi bàyyi noonu lay waxee ci yonent bi saa salaam moo tax mu naan xat ahbatu xataa araaniya kuntu wa lam yaxluq makaanan wala waxta bàyyi mu ne xat sa dëgg-dëgg ax ahbabtu bëgg naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xataa araaniya kuntu ba gis ne sax nag man maa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggeel bëgg yonent bi dafa dem ba defatu maa bi ñaar bi benn leen gis naa ne maa bi ñu ko bàyyi loolu da ngay dund ba ci yàgg yàlla may loolu wala mu ne non loolu yàgg na loolu fekk na boobu wa sama borom bi lam yaxluq bindagut makkaanan place bi ñu nekk mooy suuf si wala waxtaan ak temps bi nga xamante ci leen nekk nii boobu heure amagut place tamit amagut bàyyi na fekk boobu fa jaawartu taaha maa ngi dëkkaaleeg yonent yàlla Muhammad salaa salaam Ahmada Badra moom mi nga xamante ne su ma neexee ma woo ko Ahmad su ma neexee ma ko weer a naasiri weer wi nga xam ne mooy bu leer bi bàyyi mu ne wa jaawru sinri dëkkaaleem naa moom sama yi boo si jàngee sama woy da nga fekk ne man ku ci dëkk ak yonent bi laa parce que moom waaye moom moo wax ne du woy ku du bi la tara zikra siwaawu fi fuaadi aw lisaani in ara zikra siwaawu gayra lahwin wa majaani wamti daa un li siwaawu tey fu jinin laa araani inna nii tuula ayaati rabbu amnin wa amaani bàyyi ne doo ma may tudd ku dul bi du ma tudd si zaahir du ma ko tudd si baatin maanaam fi fuaadi aw lisaani mooy du ma ko tudd sama xol ataaya moom mooy géeji may kafi tata mawju may yëpp ci moom lay balee yàlla amul kenn ku muy jox ku dul yonent yàlla Muhammad saa salaam si yàlla ku kon bàyyi dafa dégg li muy ñaan mu ne yaa rabbi yow sama borom bil Mustafa maa lay ñaan ci yonent bi waaye nag booy ñaan tamit bul yàkkamti ki nga ñaan xaar bu ñëw mu ne maa chahri mawlidi yi mu ànd nag weeru juddum wi boo ñaan yonent bi juddoogut du sotti mu ne nag bu boobaa nag fa tuur naa nag ñu jox kulli suuf si suñ bépp aajo duna iyaa si loo xamante ne doo natt sax da ngay ñëw rek di ñu sotti incha allah kon ñu ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi leen ndokkeel bu baax di ñaan yàlla na yàlla may ñu fekkee ko bu buñ ko fekkee yàlla buñ feebar yàlla nañ ko tal suñ ko talee yàlla nañ ko jëfee buñ jëfee yàlla na yàlla gërëm bu yàlla gërëmee yàlla ñu fay bu fayee yàlla na ko manipuler mu fuul ko bu ko fuulee tamit yàlla nañ ko muurloo comment ça kan lay Aziz question am naa kon ñu sante yàlla bu baax di wax waa axir doona